Get the game. In t the game. ziar bu baax di len nangul sen ziar sen rak yu gor ak yu jigen te di len ñaanal comme niñ koy waxe at bu nek rek ñu ngi ñaan jef ju ji ngeen di def ci bes bi andak sen mbolo ak sen talube ak sen rak yep, ñew ziar si ñu ngi ñaan mu sax ba faw te barkel lol ñu ngi ñaan bu nga xamni su bes bi ñewate yeen ngeen am sen besu bop ndax yaakaar naa ne bu ñu doxee tuuti dootu leen xëj ci bésu ci bés bi moom fokk ñu beral leen seen bopp boo xam ne ak ñi leen yaakaar yépp da ngeen di ber seen siyaar ci seen bésu bopp yal nañ ci yegg te mu barkeel te kawe njort lool ah xam naa daal lépp lu ngeen bëgg a lépp lu ngeen ma bëgg a liggéeyal incha allahu rabbi di ngeen ko mën waaw kon moom bu ngeen yeboo seen xel dal ci katanu yalla ak doole seigne Ismaila Diouf Nourala ci barki bes bu tedd fi garanti na len yeen yep di ngeen tok bo sen bop yi wex tal tal tal tal ci katanu yalla seigne Ismaila xa beza xene fada mo boko xoox a kindanik to fada njof to fada njofoor to fada may to fada mbarke saxon talube to bayaq to to bayo na fa yaquna seigne Ismaila xa beza xene fata moofa bo xooxa kindanik tur ta mayɗo a mbarkeɗo a ndef yaal poolo a ndef baliw kamal ka andoona yee yaqu ke yaqoot ke yoon ke wa na yoon ke wa yaqootna sëñ Ismaila njaboot nene barke na naama den yokkana den xiiwal yokk poolo den da njof a njofooro muccona saytaani na sayir fa baatin xane fo o feet to me xeɗang wo sëñ Ismaila feek xurana ten ke bugma ku ta xeɗonga waroog fata ci na ten barke barke lauma salli aduna lépp ah, rek ban